هذا رسول لله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان متبسما فرحا بصف ملائك بسطوا إليك أكفهم بتفاني يتلقنون صلاتك العظمى التي ما ñaari at gannaaw bi sëriñ Pape Malick Sy làqoo doon caat ci sëriñ Babacar Sy juddu le 16 mars 1941 ci Tivaouane màgg ci peggu baayam ba mu amoon ci moom cofeel loolu cofeel googu law ba ci magam sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al bi ko féete palaasu baay digganteem ak ay magam ñu nemmeeku ci worma gu mat sëkk ak cër bu mu leen jox Sëriñ Pape Malick Sy donon na itam ko am oyofte digentem ak talibé yi mom mi fi nekkoon porte parole ci kër gi gannaaw bi Sëriñ Abdou Aziz Al amin genné aduna ci atum 2017 mudi di liggéey bu mu matale loolu ba tax talibé yépp fat ko ci sen xol min xar kanamam di am di ko dégg sa suné ne minal leen bu neex ak kaddu yu rafet ñu ko itam kóllëre bi Serigne Pape Malick Sy amoon digentem ak bi doon demalante ak ñoom ci xew-xew yu bari amoon amoon ak ñoom relation yu rafet ni ko baayam daan defee ñu jàpp itam si moom taxawaayam bu rafet bi mu amoon ci daayira Moustarchidine wal Moustarchidaty doon fa def liggéey bu am solo ci guddi laylatul khadri yi ci biir université du Ramadan mu di ndaje yu ñuy amal at mu jot ci weeru Ramadan te jarbaatam Serigne Mouhamadul Mustapha si Al Maktoum di ko amal Serigne pam Malick si doonoon na ko am yitte ci dox jàmm ci réew mi ak di xool luy rataxal diggante mu di ko def rawatina ci këru diine yi diiru ñetti at la nekk porte-parole ci kër gi laata muy làqu ñu denc ko ci wetu magam ba Serigne Cheikh Tidiane Sy Al fi ci Tiwaawan متقلدا بالحق والبرهان متبسما فرحا بصف ملائك بسطوا إليك أكفهم بتفاني يتلقنون صلاتك العظمى التي ما بدا للجنس من حربان والحور من